jiiru ca sëñ am di ko siyaare ne eh, di ko siyaare di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu tëwér yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu tëwér hmm. li mu yéene liggéeyal Serigne Touba ne li mu yéene liggéeyal Serigne Touba yéene ko liggéeyal maamam yéene ko liggéeyal maamam maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla ko yàlla may mu def yàlla ko yàlla may mu def ci darajay Cheikh Serigne Touba Xaadimu Rasuul noo ngi sant bu baax nag ne noo ngi sant bu baax nag soo demee nga ne ko Koso nee na. Serigne Koso nee na. mu ngi koy nuyu. di nuyu njaboot gi yëpp. di nuyu njaboot gi yëpp. di ko sant. di ko sant. di ko ñaanal. di ko ñaanal. te ñu ngi ñaan yàlla bu lii weesoo. te ñu ngi ñaan yàlla bu lii weesoo. bu soobee yàlla. bu soobee yàlla. diggante bi mu laaj ko jox. diggante bi moom daanu ko jóg. daanu jëral jóg ñëw ba fa moom. daanu jëral jóg ñëw ba fa moom. bu soobee yàlla bu soobee yàlla. nuyu ko siyaare ko. nuyu ko siyaare ko. waxtaan ak moom waxtaan ak moom. fedd li fedd li. la nga xam ne moo jaaroon ci diggante wajur ya. la nga xam ne moo jaaroon ci diggante wajur ya. diggante maam Thierno Birahim. ak maam Cheikh Ibrahima Fall. la jaaroon diggante sëñ Modou Aminta. la jaaroon diggante sëñ Modou Aminta. ak sëñ Moustapha Sa Diakhaté. dëgg la am na lu ma ci xam. mais loolu daal la moom la suñ ko sa wax bëggoon wax jëriñ seen xaalis ñu maa ko seen xaalis ñu ñëw gaañ gaañ moom dara may ko loolu soo moom ko ko addu jëf defa waaw bu bu ne waa ko seen xaalis mang na noo dem noo jaari waa dara ko ko addu jëf xar waaw mais keroog ba mu ñëwee di ziare si Abou Khoudoss suba teel suba teel man mii man mii la fekk mais man mii la fekk sëñ Cheikh Khady ba moom Modou Kara mi ngi ko fekk te guddi gi ma ñëw fii si musiba am sa te suba lu si musiba am sa. loolu am na de waaw jërëjëf am am sëñ Tuubaa waaw moom si rek daal mu di daal mu tuwaale ko daal ma di waaw moom yónni woon waaw ah, ah. ma ànd ak ñaari doom yi ñetti doom yu baax yi ah, ah. noonu ñetti moom yi mu yónni woon siyaare bi seen wàllu Moussa bi ñëwee si Moussa Sabati. ñu jaar fa siyaare doo doomee. Mm-hmm. waaye du noo juum. dunoo jëriñ borom daal yi dama ñëw siyaare ko ba def. woon woon ko ne ko nag. ku ñëw ko yaa ko tax a jóg. soo soo dem siyaare soo ko dem siyaare waaye baax na waaye waaye nooy tuub loolu ba. <laughs> nee na loolu wàññi bi dara nee na baax na. lu saa si xaalis bu sol fekk mu mu mooy lu jaam moo fa nekkal si ñun. si ñu ko bàll. comme météo moom tamit lu saa si. waaw ko nag kon seen lu jàll nag. ci borom doyoon na niveau. ñenn siyaare ñëpp yaatu di siyaare. est-ce que suñu yàgg su dund amiin Amin. Amin. Amin. Amin. ñoo ñu baax ñëpp ñoo ngi bàyyi xel ci yow dulu. ñaanal sa dund gi gën a yàgg lool nga gën a wér lool waaw nu ko nu ko ñaanal dara si baax dara si yu tedd yi jëriñ ji xëy soppe ñëpp noo ko ñaan sa sa sa mag ma ma siyaaroo ci Mbacar Darou mais. Mm. daa daa daa bëggoon. waaw njabootu Serigne Fall yëpp ñëw ñëw gàncax ko. waaw <laughs> ñëw ñëw Darou Mouhty. mais nag loolu kon defar waat lay doon. bu ne waa Serigne Fall ñëpp dem. ñoo gën a si kon dara bari lu yàqu loolu defar loolu. toll rek seen som xale yi ji waaw waxtu nee na seen xale bu ci waaw loo xam ne ko xam ne baax ci nga xam ne ko yay jiitoo gi yi digg baa ngi yëpp yaa ngi ci rek xam diggante ba waaw xam diggante ba xam na diggante bu baax waaw diggante ba no no no no bu baax xamal lu njëkk la xamal mu ji jërëjëf yàlla gën a yàgg lool yàlla gën a yàgg si yéen yu baax yi yàlla laaj yéen yu baax yi yooyu tam yàlla sun yàlla suñu bon defal yu baax yi li yéen a teew yàlla nañ ko mën di jëf ko kon xaaral nu bëgg su ñëwee moom gisul rek. waaw ñaan moom dellu ko léegi. waaw loolu la neex ak kii dugg ci loolu. neex na lool neex koo xam ne dara neexoo dara neexoo. yooyu nga xam ne gis rek ñu bëgg na ci mbir mu rëy. dara neex na ko lool ci dara dara neexoo ko noonu. waaw bëgg na lool waaw bëgg na lool. ànd gi daal mu rafet lool rek. waaw daa bëgg ñu rafet te yaatu rek. waaw loolu loolu fan la koy baax na gën a yaatu lépp rafet waaye na gën a rafet na gën a yaatu. ma ko ñaan suñu borom. day jël bondoon yi baax baax baax waaw suñ suñ seex roxo yi suñ seex roxo yi waaw moom lañ invité woon bu yàggul bër bërki dem rek waaw boobu ci suba sax suñ so wàccu liggéey waaw moom moo fi ñëwoon keroog waaw moom waxtaan keroog waaw seen nañ ko sax sax muy dugg si benn jaare sax keroog moo ñëw la keroog moo ñëw la ajaare si moom si adiya di am solo ci jumaa ji barke la ko ci sëriñ bi waaw

leen sant leen di leen bëgg lool. looy sant di la bëgg lool yéen a looy sant di la gërëm di la bëgg lool. rek mu sax sax yàgg gannaaw suñu maam jooju ak ak ak Cheikh Ibrahima Faty maa ngi leen di ñu seqoon ci seen seen biir tax bu baax baax jërëjëf waaw naa mbég bi maa doon mën di bég ñu ñor ko wàll mbég bi maa doon soxna Yaay nee na mi ngi nuyoo. soxna Yaay Ndiaye. nee na mi ngi nuyoo waaw. sëñ Talla sëñ Talla. mu waaj ba noppi. di dem. waaw ndax moom nee na daa xamul yónnee ba pare di joxam njaay. ah ba pare de ah. ba noppi. waaw li li waay. mais nag maa ngi jéem daa xamul moom xamul. déedéet xol boo xam noonu. ah kay. miin naa ko. waaye foo foo ko may dund fii. waaw daa fekkoon. waaw xam nga ma ubbi leen sama yor jox leen. leen ma jox leen. waaw ma fekk na bon. Eh. wut naa. jox naa Moussa Ndiaye ñaari jaar ak mel mu yetti jaar. Ah. na la waxee foofu day fay jël. moom kay da nga ah. baax da nga da nga bàyyi moo moo moo wax li ma bëgg a wax. dama ko ah, mën a. waaye moo gën a mën a. da nga wax li nga mën a. lu am pare. waaw du ma du ma wax rek. moom daal lii ñu ma joxoon. damaa dem fekk mu mu defar yëfam ba noppi. waaw. bay waajaat yàlla dogal. loola méngóog lii. waaw. waaw waaw loolu de moom daal. mu ne kon nan nan yóbbu lii. nan yóbbu te du ko bind mi rafet nag. waaw waaw lu bindaat. waaw <laughs> ah, ma xaddise mun fël loolu <laughs> da nga koy ñaanal rek waaw lay li mu bëgg ci sëñ bi mu am ko waaw ah, ah, eh, loolu loolu doon sëkk ñaanal ko mu gudd fan amuloo kon loolu doon sëkk mat na sëkk sëkk sëkk waaw taxawaay dara du si waa waa daara mu bëgg na ñetti xalifa yi dem ka mag ji waa ka sëñ Moussa Mbacké ñaan ko sëñ Moussa Mbacké mm-hmm. ak ki nga xam ne moo fi mag moo mag ci waa sëñ Moussa Mbacké léegi Euh, mooy suñu xaalis bi dootoo waaw suñu baax la dootoo waaw. noppale rek ci borom daaru ki nga xam ne moo fi nekk borom daaru suñu bésu si ñoom. nett li ko nag. Euh, la la la la suñu xarit waxoon ne ma ne ko. Mm-hmm. suñu xarit ma sama wax ni ma. damaa waa daaru mooy kër si a nit. jaaree si ma. xam nga loolu dañuy bëgg loolu. waaw waaw waaw daa bëgg waa kër si waaye ñëpp dem jaaree ji borom dëru. xam nga suñu nee waa waa Dakar dañuy dem dëru. waaw adduna doo tukki moom. waaw waaw daa daa lu bari lu yàqu loolu loo xam ne teel a lay defal moom. waaw waaw ma dem dara ma. waaw kon loolu comment dégg sax waay. yan mu ngi ko dégg yan mu ngi ko dégg. waaw waaw waaw waaw dégg. jéem a. waaw waaw man sax noo ñaan nga yàlla. waaw kalaame leen fu nekk. noo ñaan nga yàlla gën a yàgg yàlla gën a wér yàlla gën a mën. yàlla nuyu si suñu ji. loolu yaa si jëf bu baax yow rek am yaa ko am. yaa ngi fekk ak ñoom. loolu nag ñun suñu yàlla. waaw dem la yàgg a doxal. ko bëgg ko ñaanal ko ñaanal ko rek. waaw amiin Fall amiin